tournoi du à 221, vous m'avez trop manqué, alors c'est notre deuxième numéro Info Comme vous voyez, aujourd'hui, euh, nous sommes ici dans un jardin agricole accompagné euh, de notre euh, cultivatrice, notre guide qui va nous expliquer tous les éléments. Alors, elle s'appelle Martha. Alors, bonjour Martha. Bonjour Kumba. J'espère que vous allez bien. Bien, merci. Bien, merci. En tout cas, merci, c'est un plaisir d'être là. Comme vous voyez, on va vous expliquer toutes les différentes croissances, les différentes procédures de croissance agricole, mais aussi sans oublier les inconvénients et aussi les atouts. Alors suivez-moi, c'est tout de suite. waxee sànq rek ci affaire wu tey ci ci mbay mi tey ci mbay mi dal, lañuy la ñuy mm-hmm. voilà mu ngi noonu donc euh, ñu gis ni euh, tey bay doon na doon loo xam ne tey jii am na suñu bari ñu ngi koy ñu koy ut ñu koy def mm-hmm. doon na loo nécessité la parce que mm-hmm. ci la ñuy ci la ñuy dundee on peut dire comme lu ci mel ni légumes déjà fii gis nañ fi salade gis nañ fi voilà lu ci mel ni euh, chaud persil et tout ça voilà mm-hmm. mu ngi donc ñu muy wan ne nécessité la voir xam ne mënul ñàkk si mm-hmm. et que gis nañ aussi mbay léegi de peut-être jeunes yi léegi ñu ngi siy dem par par par nànk-nànk mm-hmm. waaw léegi lan nga ñu expliquer exactement comment ça se passe parfois ci ci wàllum liggéey bi et tout ça liggéey bi particulièrement mi ngi tudd micro jardinage maanaam comme soxnoon leen rek micro maanaam lu tuuti un jardin bu tuuti lu si ëpp liñ ciy gën a xamee nag mooy ci kër yi comme ñi nga xam ni comme fii euh, Dakar ville bi mhm. on a pas assez d'espace donc ñi nga xam ni amuñu espace te bëgg nañu bay mhm. système bi lañ leen indil pour ñu def ko ci seen terrasse seen balcon foofu foo xam ne dafay soleil mhm. pour ñu def euh, plan euh, cultiver ba seen différents légumes yu ñu bëgg waaw mun na am nekk naa salade yi nga xam ni c'est rapide concombre chou mais lépp loo xam ne c'est maraîcher c'est culture maraîchère day dem ci table yi d' accord et oh, comme ni nga ko waxee léegi ngi expliqué à travers comme ci soleil bi donc ci soleil bi mun nañ ne moom moo koy moo koy kii. mooy tax affaire bi développement wu kii bi croissance bi daal ci ci ci légumes yi. donc lii ñu gis ni aussi comme cadre gerte lañ. Mhm. xottu gerte lañ gis. Mhm, d' euh, comme bu nekkee ci mbay comme bu nekkee dans les grands champs et tout ça mhm. euh, suuf la ñuy gën a gis nit ñi la utiliser. mais fii on voit carrément il y a des voilà les les arachides yi nga xott yi voilà moom la ñuy utiliser. waaw comme ni ma ko expliqué sànq lii mm-hmm. table yi comme ay bois de récupération la. d'accord donc euh, bu ñu ci defee suuf tey jii euh, pois bi mun na yàq bant bi. te aussi côté drainage bi euh, suuf bi day day day côté trou drainage telle sorte que ndox bi du génn te ndox bi bu génnulee. Mm-hmm. racine racine bi dafay nëb. te mm-hmm. plante bi day dee. moo tax ñu utiliser coque d'arachide bi. parfois dañ koy jaxaseeg balderie juste pour mu mën a am euh, ndox bi mën a infiltrer normalement pour excès bi euh, boo amee excès mu mën a génn si tuyau bi mhm. sans problème te aussi ak poids bi aussi moo tax ñu lii mooy euh, substrat adéquat pour les tables par contre ci suuf si moom ba mhm. tey baax na mais lépp luy suuf di saxal rek xoltu gerte bi da koy saxal da koy saxal tamit différence substrat la ñu am am na substrat solide ak liquide mhm. solide bi moo nekk nii liquide bi mooy ndox bi nii xam naa après dinañ ci dem. dinañ ci dem d'accord alors lii lii lii chou pommé la. chou pommé la voilà bii maanaam chou pommé buy. bu saxagut mais bon mhm. à <laughs> ci petit croissance sam la toll quoi mu ngi mu ngi par nànk parce que repiquage bu yàggul mhm. moo tax mu toll nii mais après d'ici quelques un un deux mois lay ñëw gis ci pomme bi day formé comme nekk jour bi nekk si marché bi d'accord alors ñu gis fii tamit aussi ay ay salade parce que voilà mhm. lii lan la sax lii moom daa mel ni ci lii mooy mën nañu wax pépinière pépinière maanaam boo jëndee graine bi waaw koy def en pépinière ba pare après nga soog ko jindi jëmbat ko par benn benn moo neeral moo nekk nii pépp mu ngi nii. Mhm. pépinière bi moo nekk nii. Ah, après yi ngay dindi par benn samp ko. Ah, nga may leen espace waaw nga may leen espace pour ñu mën a. am croissance am croissance waaw fee gis nañ fi tamit ay persil et tout ça lii salade yi dafa nekk voilà mu ngi mu ngi sax pax la mhm. itam pépinière la. tomate mm, lépp daal luy sax ci suuf. Mhm. day sax ci table. lépp donc ah. on peut dire que lii mun nañ ko def tamit suñu suñu kër yi. c'est pas voilà pour mun a lekk loo xam vraiment c'est sain quoi. parce que léegi gis nañ gis nañ léegi côté aliment bi et tout ça. Mm-hmm. lu ñuy lekk léeg-léeg daf ciy bëri ay yoo xam <laughs> éléments yoo vraiment. mooy loolu c'est ça parce que euh, maraîchers yi euh, lu si yëpp ay amateurs lañu donc euh, il faut du aussi de nous am ku leen accompagner genre technicien horticole. bu leen accompagner. Mm-hmm. ci déroulement semis ba récolte. parce que semis ba récolte di nga jiyee mais di nga traité garab bi parfois. te dafa am produit yoo xam ne moom nga war a utiliser pour traiter. te aussi boo demee ba sa garab di commencé ñor. Mhm. mu am feebar. Mhm. dafa am produit booy utiliser n'importe quel produit nga utiliser. Mhm. te boo ko utiliser da nga war a xaar aussi dafa am délé boo xam ne moom la ñuy wax délai avant récolte boo war a xaar. ba produit bi dañ ci euh, légume bi. nga soog ko récolter jaay. mais ñoom mm, euh, pratique yooyu yëpp dañ ko ignorer moo tax nag lu euh, li ñuy lekk c'est pas très sûr. Ah, xamuñu ko ah. bon dañuy lekk nii pour lekk rek mais amuñu confiance si dañuy ñuy lekk. ci li lekk effectivement ah, parce que nga am benn. formation bi pour mën a xam yooyu yëpp voilà voilà comme ni nga wax rek voilà parce que déjà lekk bi déjà am na ci ñoo xam ne dañ koy wax euh, tur bi ñuy wax comme dañ koy genre greffé Mhm, voilà mhm. am na ñoo xam ne ils te disent que ñam bi dafa des quoi dañ ko greffé mhm. donc loolu après day day indi li nga xam ne mooy si ci côté santé dañuy gis ne léeg-léeg yenn complications yi ñuy indi parfois ci ci ci lekk bi te boo jëlee nga nga bay ko loo xam ne tey jii mun nañ dire euh, lu ñuy li ñuy bay fii moo gën on peut dire que lu ñuy jëlee fee di ko di ko indi fii donc on peut le faire fii si suñu suuf yi voilà suñu kër sax suñu dire de plus près parce que boo ne suñu suuf sax mun na nekk ay Thiès ak yooyu mais ci suñu kër nan bay sawé sa weewu tànk yow à 5 mètres de toi mun nga fa bay mhm. parce que instant bi je pense que excuse amatul. parce que mhm. li lool moko ko tax mhm. surtout côté sécurité alimentaire parce que li ñuy lekk xamuñu ko li ñuy exporter xamuñu ko luñ ci def avec les OGM et tout. personne n'est en sécurité. donc la seule solution c'est ça. waaw nit ku ko ko euh, vivre en paix en pleine santé. je pense que mo gën. parce que koo moo xamul li ngay lekk mom da ngay jéem a sa bop te li tey boo ko demee ko sa kër mhm. mun nga sax gëmb lekk ko parce que xam nga li ci nekk ci xam nga lo ci def yëpp waaw parce que déjà yow ya ko bay ya xam lu ci nekk et mhm. tout ça est-ce que yeen sax do len am problème pour lekk yeneen lekk yeen ñi dem ba tàmm ko diko xam yeen yeen ki légumes yo xamné day dañ koy jëlee feneen si mhm. parce que tay ji bo ñamé produit micro jardin nga ñam benen produit nga xam ni ah. ya une très grande différence d'accord parce que côté surtout côté goût sax côté odeur tey nana bi boko jëlone

Il y a aussi des bouteilles recyclées la. Mhm. yooyu yëpp pour def ko. Mhm. lii pour pour ay defaraat ay parce que micro jar li ko mhm. table, a du table c'est une bouteille. gisoo gisoo bouteilles yi. bouteille. bay. c'est-à-dire mun nañ ne pas utiliser simplement table yi. mais aussi bouteilles yi aussi mun tout ce qui est plastique. tout ce qui n'est pas métal. on nañ ci bay déjà plastique yi loolu dina wàññi li nga xamné moy pollution dégradation avec yoy lolu donc mun nañ jël li nga xamné comme par exemple moy bouteille yi mhm. def ko déjà yi dañ koy gis d'habitude ci en base yi nga xamné ne ñu fleur mhm. et tout ça fleuriste yi d'habitude da ngay gis ñom yi lañuy gëna gën a utiliser c'est à moindre coût mhm. parfois bu dee la kay yaa ñu may la ko té do ci frais lu bëri te dañ ci euh, indil nit ki euh, santé bo wér-gu-yaram bo xamné mom xamuko yow xamuko ko waaw parce que yaa ngi koy jaay loo xam ne ko té xam na effectivement d'accord après bon on nañ confiné. Mmh. banaan -hmm. bon, fii waaw banane là aussi. mu mmh. nekk nii di mmh. jënd nii. lii cotonnier la. cotonnier coton ah, ay coton garabu coton effectivement mu nekk nii si si si donc banane mom, moom ñoragul des na tuuti. waaw moom des na des na voilà. on peut attendre peut-être avec le temps durée d'habitude mbaa du yàgg noonu. Euh, waaw dafa faa dafay xaw a jël temps. dafa faa dafay xaw a même aussi bu demee ba mat nii. da koy récolter. li ñu naan rënk ko. Mhm. ba mu commencé jaune noonu. lu ah, te du duñ ko ba mu jaune fii sinon day am ay euh, ravageurs yu ñëw. yàqu ko waaw yàqu ko. parce que dañ koy dagg dañ koy dagg régime bi. teg ko fenn foo xam ne saa moom comme ko defee ci champs. exactement waaw pour éviter escargot wala dara. laal ko laal ko waaw effectivement. d' accord donc ba tey oh, dañuy continuer. yii yëpp ay plantes aromatique la. ah yii yi basilic la. ok basilic sacré lañ koy wax. Mm. yi verveine la yëpp day dem si thé infusion. Ah, comme yi infusion yi infusion yi yëpp da si dem. ok waaw bi nag plante paracétamol lañ koy wax. Ah, bi plante xool sax dafa xaw a am xet. dafa xaw a am xetu lu wex. waaw waaw c'est ça <laughs> donc mën nañu ne day faj. waa waaw. ok yaay plante yoo xam ne yaay infusé la euh, ba même yi aussi parce que garab boo gis. si àdduna am na lu muy faj xëy na. Mm. nit ñi ñoo dul dem ba xam exactement lan la. Mhm. mais garab boo gis mhm. àdduna day faj. day faj effectivement c'est vrai ay naanaa la. Mhm. différentes variétés. def table yi. ok

indi yeneen opportunité pas opportunité sax mais mhm. yeneen jëriñ mhm. joo xam ne tey jii euh, mhm. mun nañu ubbi ubbil voilà comme déjà côté financier moom voilà dina am loo xam ne lu muy dugg ci côté lii tey jii euh, jël nga ko utiliser nga ko si sa santé mu lay faj loo indil na indil la ah. leneen donc vraiment c'est lu mat a bàyyi xel la daal en tout cas lu a adopté la tax parce que fi ñu jëm nii moom sa euh, dëkk bi du ma ne Sénégal sax monde entier bi daa daanaka li fi wóor léegi bëreetul surtout côté lekk. lekk waaw ñëpp xam nañ ni ay OGM ak yu kenn xamul engrais yi parfois da gis légume bu rafet mhm. marché. Mhm. mais boo ko daggee doo sentir sax ni lii poivron la wala tomate la. wala côté côté goût aussi. dañ koy sentir du am du am daraay tomate goût tomate. ok te yooyu yëpp pour euh, pour pour pour. pour pour je sais pas. jàpp xeex la waaw waaw combat la on peut dire voilà combat la parce que luy dugg ci sa yaram war nga ko a xam. effectivement waaw lekk loo xam ne lan la.

yaa ma ko doon expliqué déjà tey bi day mm-hmm. day day faj. Mm-hmm. voilà day faj donc ça veut dire que voilà ah, côté fatigue côté sommeil. Mm-hmm. da ngay boo amee insomnie. kañ infusé da nga koy naan da nga nelaw normalement. d' accord yooyu yëpp plante yi yëpp parce que ñun naanaa dañ ko xam uniquement ci ataaya. mais day dem si togg. marinade ginaar yàpp tuuti ginaar yooyu. waaw waaw waaw naanaa bi effectivement. léegi nit ñi ngi koy def basilic aussi même chose. loolu lan la moom basilic. mooy ngun-gun bi waaw ah ngun-gun bi waaw waaw waaw basilic si si. moom benn utilisation rek lañ ko xamee. waaw gun bi ci ataaya bi rek lañ ko xamee. déjà xet bi dafa neex. waaw dem si yàpp day dem si togg yi mhm. persil yeeg yooyu yëpp. waaw dañ koy investir di ko naan. mais ñun d'habitude si kii rek lañ dama koy def sax. comme euh, comme par exemple li nga wax ni euh, <laughs> mooy euh, naanaa bi xaw ma persil bi non persil bi d'habitude on dit comme règles yi dafay les règles douloureuses et tout ça. day di douleur bi voilà parce que dañuy naan boo ko infusé et tout ça mm-hmm. jël ndox bi mm-hmm. di ko naan ba xal ko di ko naan da koy day day wàññi li nga xam ne moo di. moo di douleur douleur bi quoi douleur kii bi. te léegi feuille bu efficace la. moom mhm. persil. Mhm. bon yu efficace sa bëri parce que bu ñu koy wax yaakaar naa ni fi jigéen. Mhm. mais persil moom da ciy raw. moom ñoom verveine marjolaine yu yëpp. am na lu muy jóg ci ci yaram ci ki ci santé yaram te côté infusion ko infusé ni mm-hmm. naan ko dañ yow sax di nga sentir ni ya quelque chose bo xamni mm-hmm, mm-hmm. dafa melni ne dañ ci yow d'accord donc lu ñuy jël lég lég comme parfois xam ñun léegi jël nañ tam nañ collagène yi et tout ça ah. <laughs> té li donc mën nañ né don na lo xamné produit bo xamné ne tey duñ né produit sax parce que eh, lu naturel la en fait yalla moo ñu moo ñu ko bay tey jii mun na don lo xamné ne lu ñuy lu ñuy faj la d'habitude si on voit chinois

moi li ma wax sànq peut-être euh, connaissance yi moo dul demee mais lépp a ngi ci nature bi d'accord Sénégal aussi ñoom seen xam-xam dafa xaw a limité te il est temps je pense que ñu gëna a yaatal xam-xam bi gëna adopter système bi di bay lo xamni mu ngi ci sa kër au moins bu ko def kenn ku nekk am au moins bu dé ben table la sa kër comme ça sax day tax nga xam mhm. euh baykat yi naka lañuy ñuy naka la ñuy naka lañuy mhm. def bo am salade da ngay mhm. jënd sa jiw def ko pépinière bu paree nga jël jëmbat

salaat ba ba déwén. Mm-hmm. genre pour courir parce que dafay bëri je veux dire. Mm-hmm. tey jiw comme pépinière bee ma la woon ne. Mm-hmm. bu saxee nga jël ko. répéter ko comme nii. un mois. mu màgg nga jël ko jaay màgg nga consommer ko. moom affaire moom méttiwul. méttiwul noonu daal voilà ak côté engrais bi léeg-léeg mbaadu cher ak yooyu noonu. Euh, waaw nga période bii ñu toll nii nag moom euh, ñu ngi naan sa mondial. Euh, produit yëpp pas cher fi mu waaw waaw loolu moom c'est vrai. Mhm. mais quand même on a un peu du mal à trouver certains produits mais quand même. on fait avec daal. Mhm, mhm, on utilise parfois les fumiers de volaille ou de cheval. Oui, surtout de cheval yi. d'habitude on gis voilà. pour compenser au cas où bu dee dafa nekk en manque mun euh, ngeen di jël utiliser ko mu doon engrais bi. waaw mu engrais bi. d' accord d' accord je pense que ak euh, bu cheval bi sax da ngay gis ne ñu bëri dañ koy utiliser parce que ils disent que voilà c' c'est c' bien. voilà day tax day li ngay kii nii sax parfois yenn engrais yi mun nga jël boobu noonu nga utiliser ko. si si moom aussi Bon, je peux dire que c'est gratuit, mais c'est naturel. C'est naturel, voilà, c'est naturel. En tout cas, les poudres naturelles, du côté les mhm. côté arbres, qui mhm. comme par exemple les légumes, du mhm. côté végétation et tout ça. Donc, il faut que dalle, nous pouvons utiliser ça. Oui, moi, parce que moi, c'est mon objectif lol. Au moins, vous avez fait, quelqu'un même vous avez une pomme qui est un petit peu ça, de consommer am ko mhm. parce que fiñu jëm comme li wax tout le temps rek mhm. euh, fiñu jëm mom déjà euh, côté santé on en parle mais côté euh, aspect financier bi effectivement parce que les choses coûtent cher coûtent mhm. cher légumes instant bi si marché bi kenn du ko laal donc tey jii yow boo sa cœur bo soxlaa nga dem witte directement sa tin sa tin même pas du durer une minute ci air bi nga dem raxas dugal sa tin donc loolu rek ça fait plaisir ça fait plaisir ah, aussi ak wér santé bi mu lay indil ci sa yaram aussi te da nga koy te da nga koy ressentir sax nag yow mi di ko utiliser da ngay dem ba di ko ressentir voilà mooy comme ça que li nga doon expliquer déjà gis nañ fi ay bouteilles comme par exemple euh, bouteille yi nga ma doon wax ni comme par exemple yi mhm. da permettre comme euh, tey ji euh, mhm mooy comme sànq recyclage yi ñu doon wax ak mhm. yooyu déjà là ñu ngi gis naanaa yi et tout déjà bouteilles yi ça permet li nga xam côté recyclage bi et tout ça mhm. déjà fii ñu ngi gis ay bouteilles yoo xam ne mhm. dañ ko daal di dagg xam nga remplir si lu ci mel ni ay naana mag maa ngi siy gis ay naana li citronnelle la je pense voilà mu ngi noonu donc lii rek mooy woote li nga xam ne côté pollution bi déjà suñu émission ça part de l'environnement essayer li nga xam comme mën nañ ne bokk nañ tuuti objectif bokk nañ but li nga xam ne euh, permettre euh, xeex li nga xam ne dégradation bi mhm. pollution bi et tout ça parce que mhm. lii matière plastique là mhm. donc li ñuy jël di ko et tout ça mën nañ ko utiliser mën nañ ko utiliser fu bay gisoo boo seetloo gisoo kees yi gisoo pañe bi pañe marché pañe marché la voilà tout ce qui est euh, tout matière de plastique waaw tout ce qui n'est pas métal rek métal mun nañ ci bay mhm. gisoo butéel ay vingt litres la ñu dagg ko mhm. xam nga li jënduñu ko te dañ ko for mhm. waaw mooy mooy euh, kii micro jardin rek lépp loo xam ne day néewal say dépense looloo ko tax a jóg looloo ko tax a jóg waaw néewal say dépense côté achat si jënd euh, matériels yi aussi yokk say bénéfice ci vente yi ak ci récolte yi waaw ok parce que tey boo xoolee yëpp jënduñu ko. Mhm. dañ ko dem foore ci mbedd waa ñu may ñu ko. Mhm, mhm. def suñu te def suñu naana ba fay jaay ko. jaay ko waaw c'est pour cent bénéfique daal. lii aussi day permettre tey jii

bon man depuis euh, ba ma amé bac. Mhm. la suivre formation bi. Mhm. BT. BT d'accord au centre de Cambérène. Mhm. et après 2017 la paré formation bi. ñu nag depuis 2017 jusqu'à nos jours maa ngi ci maa ngi ci yëngut. mais dama nekkoon ci ay tol nak ci grand champ yi fait de Saint-Louis, Kër Momassar, un peu partout au ah, Walo. D'accord. Après, là si laa depuis 2020. là qu'on m'a spécialisé au ci micro jardin. parce que comme nous, avons un objectif mooy ku nekk mun ko am si sa kër. Mhm. di bayal sa mhm. faire am si sa yaram am aussi euh, kii waale environnement environnement mais surtout surtout d'accord surtout.

jean dan kan koy roof wala dan kan je koy een genre laurier lay doon. non comme euh, comme persil. persil ñu utiliser persil dañ koy dëbb mun na nekk roof mun marinade mun na ok dañ koy infuser aussi di je. naan. d'accord yëpp dafa am ay bienfaits van si nekk ay bienfaits. mun na def togg bi je nga nekk looy naan. Hmm. waaw utiliser. te je yi lay wax aw ma ci xam-xam bu yaatoo yaatu sax mais tey ji bu doon ku ko xam dëgg dina la wax sax leneen loo xam ne lii mu ngi koy faj mm-hmm, mm-hmm. pour dire juste que lépp ngi ci nature bi mm-hmm, lépp ngi ci nature bi effectivement si si nature bi lu muy faj bari na trop waaw mooy faj parce que médicaments yi ñuy utiliser seen base plante mhm. là. -hmm. si si C'est vrai hein parce que garab d'habitude, d' habitude dañuy naan garab yi ñuy utiliser yëpp ci ci plante lañ ko lañ ko dañ koy jëlee. plante la jógee peut être mhm. après am na ñu si rajouté mais base bi c' est la plante. plante waaw kon mooy waral ñu war a vraiment environnement bi parce que mhm. boo ko sàmmee yaa ngi sàmm sa bopp. Mm, yaa ngi sàmm say dom wala yaa ngi sàmm daal. toute une génération effectivement effectivement.

alors mhm. Martha mhm. comme nous mhm. peut-être arrosé <laughs> <laughs> comment ça se passe d'accord alors euh, Martha comme ni ko

léegi lii moom la ñuy arrosé n'est-ce par kii rek waaw <laughs> te arrosage bi. boo arrosé tey mun nga too mun nga ko tëbalaat suba. ah d'accord waaye ba ginnaaw suba nga nekk arrosé waat te comme temps yi période seddaay la nekk. waaw pare dépendre si temps bi ni muy wala méttiwul jëlul temps compliqué wul nii lañ koy defee jël ndox bi arrosé ko arrosé boobu te sànq yaa ngi naan du du chaque jour lañ koy def waaw tey ji boo ko arrosé tey xam nga temps depuis démb naaj amul waaw waaw waaw mu arrosé tey mun nga tëb tëbal suba nga bàyyi ba ginnaaw suba nga ñëwaat arrosé leen d'accord parce que bu dee dafa tàng trop nag moom foog nga arrosé ko chaque jour waaw waaw ça dépend ci temps bi période temps parce que comme instant bi seddaay baa ngi dugg si moom on peut dire que voilà ça va waaw comme nit ni muy naane tàngaay ni muy naane du benn day dund tamit ah day day feebar dañ ko war a faj dañ ko jox garab day lekk day naan ah. day nooyi day def lépp comme nit comme nit <laughs> ah, xëy na wax rek la munul wax rek la munul effectivement ah. bu naturel la en tout <laughs> cas <laughs> naturel moom voilà c'est ça mhm. léegi comme ni ma ko doon expliqué sànq. Mhm. dafa am ñaari façon substrat. waaw bu naan solide. Mhm. mooy ko xoltu gerte bi. waaw ak substrat bu ñu naan liquide. liquide mooy ndox bi. ndox bi maanaam ba ci ndox sax mun nañu bay ci ci kawam. ci mm, ndox waaw waaw boo seetloo lii naanaa la lii moom la ñuy wax polystyrène waaw waaw waaw dañ koy def fii bouture pour mu am racine mm. pour ñu mën ko repiquer mun na nekk tam emplacement définitivement mm. wa seetloo racine yaa ngi liggéey parfois nga yaakaar ndox day yàq mais tam day defar aussi. parce que lii boo jëlee éponge bi nga koy entourer. Mm-hmm. pour bañ mu tëmb. yi yëpp ay système de culture la mm. juste pour wax ni daal lay amul mm-hmm. ku bëgg xanaa nga bañ a bëgg mais boo bëggee moom waaw dañ ko def dañ ko def effectivement moom ngeen utiliser ni moo nekk moo nekk nii waaw moo nekk salaat tam da siy dem bu nga si def salaat bu ah. dem ba récolte bi récolte waaw yëpp ah. si substrat liquide bi waaw waaw waaw

waa waa comme ni nga ko expliqué tam parfois daf ñuy yi ñuy handicapé bëri na comme loo gis lu nekk am na inconvénient mm-hmm. bon li si inconvénient bi si ëpp mooy comme ñoom ni mu ko doon expliqué sànq escargot yi parfois da ngay defar mm-hmm. ñëw yàq ko waaw mm-hmm. parfois nga defar am mm, kaña wala rongeur yi ñëw yàq ko parfois tam nga sax def nit yi si boppam ñëw comme exemple banane bi tey ji boo wàccee mun na am ñu fi dugg bëgg ko dagg ah, yooyu yëpp ay inconvénient yi ñu jànkonteel la c'est vrai côté euh, intrant yi aussi parfois obtention bi mun na jafe. Mhm. parce que mun bu manqué rek. waaw waaw tam dañ koy yëg. dañ koy yëg c'est vrai côté substrat bi. Mhm. côté euh, euh, engrais yi aussi même chose. parce que éléments yi ngay utiliser pour pour defar engrais bi. Mhm. parfois dafay manqué. d'accord dafay daan manqué carrément telle sorte que da lay handicapé si lu bëri. moo waral sànq ma ni mun nga comme alternative mun nga utiliser fumier yi. Mhm, mhm. waaw def ko en attendant nga koy nga koy amaat. d'accord yooyu yëpp yi ñuy jànkuwanteel la. d'accord léeg-léeg mhm. si. mu mel ni na ñoo xam ne dañuy ñëw. Eh, fii jënd si élément comme sànq lu ñu doon wax ci côté euh, lekk li nga xam ne dafa dafa lu baax la lu sain la. gis nañ tamit comme ça veut dire que am na ñoo xam ne il

bien ah, bien avant kii bi di. di di produit ñor sax fekk voilà nañ ko ba pare commandé nañ ko ah, loolu yëpp si xam produit bi moo tax. d'accord d'accord aussi euh, prix ak prix prix euh, euh, produit micro jardin ak bu marché c'est pas la même chose. c'est comme Sénégalais ñun lu si ëpp moom. lu gën a bon bii moo gën a cher parce que bii c'est plus bio boobu waaw parce que bii xam nga li si nekk xam nga li si yëpp mhm. te xam nga ni amul pesticide amul dara mhm. te bu marché bi xamoo ko ah, euh, a <laughs> qualité loolu moom parfois tamit dafa xam ne dañuy yaakaar ne li nga jaay dafa cher te loolu nga ko mën a jaay pour mun ci génn mun ci parce que tamit li ngay jaay aussi dafa baax mhm, effectivement dafa baax te mun nga ko garantir li ngay jaay dafa baax ki si marché bi mënu la ko garantir déjà loolu rek

Mm-hmm. tey jii boo fi bàyyi woon raakal fii ba suba. Mm. daanaka du ko du du doyal du doyal. dafa bëgg ndox. plus muy am ndox plus doom bi di dijj. ah d' accord donc doom bu dijj ah, ci ndox bi la dépend. ndox bi ak euh, kii bi euh, engrais organique bi. ah engrais organique bi comme tey jii boo amoon fumier fas bi nga sànni ko fi def fi ndox sànni fi raakol bi. Mm-hmm. boo seetloo nawet euh, fi day fees dell ak banaana. nawet waaw. ndaxte balaa ñu dëjëñ koy am. Mhm. parce que y' a fii dafa nekk genre pond donc ndox bu ñëwee dajaloo foofu. waaw waaw te banaan la bëgg. loolu la ndox rek ak euh, fumier. donc donc moo tax affaire bi xaw a waa d'habitude da ngay mhm. gis fu muy nekk day xaw a tooy. waaw tout le temps day parce que déjà xoolee ba ci xobu kii bi mhm. banaan bi gis nga xob yu dijj la doon. voilà voilà xob yu xob te aussi euh, euh, ni muy dagg tooy ni ngelaw bi moo koy def. te fi on a eh, bon amuñu trop eh, ngelaw boo xam day di yàq ah, parce que li day day wañi rendement bi. parce que muy daggatoo waaw waaw. si si si lu ci bari day gis banane yo xam day sew. waaw amuñu ndox. da uh-huh. pare feuilles yi day daggatoo comme si du banane effectivement fa dañ koy gis. yoy yep manque d'eau la. Uh-huh. ak fi ñu nekk bëri ngelaw. moy moy nek facteur yi waral loolu mooy waral feuille bi di xaar. di am fa la te boba do am rendement bu baax. Uh-huh. waaw parce que day dem ba sec gis nga après nii lay mujjee quoi voilà voilà day mujj wàcc daanu et tout ça alors boo gisee feuillage bi di nga xam ne lii am na ndox waaw mhm. si si garab moom yaa ngi koy voilà feuillage effectivement parce que gis nañ dijj na. Mhm. voilà ah. gis nañ dafa dafa dijj. Mhm. alors Martha comme voilà comme waxtaan nañ déjà wax tuuti ci ci ci ci inconvénients yi et je vois que parfois c'est peut être c'est c'est un peu compliqué. déjà peut être euh, comme ni ñuy wax léeg-léeg ngeen defar am ñoo xam escargot yi ñëw yàq. loolu moom du si mais tu boo gis nag. parfois foog mu am dégâts foog mu am dégâts <laughs> voilà mu ngi noonu. mais quand même on peut dire aussi parfois am na atout parce que tamit am na ci avantage yu

pour entre décembre et fête il bi ñu mën assez de légumes yoo xam gars dañ koy gën a utiliser ci feet yi salade persil les épices mhm. avec les plantes aromatiques mhm. euh, les crudités concombre tomate et autres mhm yëpp dañ koy mais comme parfois aussi peut-être di ngeen soxla côté financièrement mhm. est-ce que dina am ñoo ne mhm. ci peut-être peut-être on peut pas dire voilà état parce que déjà seen yëfi la mais quoi parce que tout ci bëgg nga ci li nga la voilà voilà lan lan bon euh, côté aide état moom bon entre guillemets état wala benn euh, benn benn vol rek waaw <laughs> d'habitude duñ koy di am trop parce que euh, liñ ci am boog bëriwul boog bëriwul parce que côté état moom dinañ ñëw parfois def seen prospection mais après du mujjee du mujjee fenn daal mhm. waaw mhm. bu ñu doon teg loxo ñi nga xam ñuy ngi def micro bon lu mën a sax micro jardin waaye agriculture de manière générale je pense Sénégal tey fi mu nekk nii dina ko romb. Mhm. waaw mais bon parfois. Euh, du ñu am aide du ñu am kii dañu mujj demal suñu bopp. effectivement comme nga message ngay euh, jeunes parce que déjà on est des jeunes voilà jeune comme comme comme comme mhm. donc aussi amour tu pouvais dire non je vais pas faire ça je vais faire un autre truc et tout ça mhm. mais euh, jeune et tout ça lan ngay mën a wax tey ji déjà sa ko jigéen yi en tant que jeune ak tamit képp koo xam ne muy góor nga bëgg a lancé wu tey ji ci benn projet wala ci benn ku ne am amu boo xam ne ci affaire li ngeen di def nii la ci affaire agricole bi ci côté li nga xam ne même bu nekk agricole mais côté nature bi et nga leen mën a wax. Mm-hmm. boo mooy commencé mooy comme ni nga wax sànq en jigéen di ko def. parce que ba may suivre formation bi moom. Euh, yaakaar naa ma déglu woon ñeneen ñi bu ma déglu woon nit ñi moom du ma egg fi tey. mais loolu laa mës bëgg man ma bëgg le def leneen parce que li nekkul option bu ma choisir mhm. moom laa mës bëgg am bac suivre ko mhm. pare ci ba tey continuer di si nekk ba fi may wax ak yéen nii tey te mhm. incha allah ba ba may dee loolu moom laa bëgg a def bu dee leen day ñëw aussi loolu secondaire lay doon mais lii mooy jiitu ba pare waaw kon euh, mooy amour bi foog nga bëgg ko parce que boo ko bëggul nga bëgg ko def parce que am na xaalis doo si dem moo mos a dem mhm. ki am amour bi am cent mën mhm. na si récolter ay millions mhm. yow mi amul amour am million boo xam ci cent franc ngay mujje voilà parce que dafa nekk loo xam du fen comme niñ koy waxee sànq dafa mel ni ku nit rek boo koy nax rek dina ko xam boo ko naxul dina ko xam waaw maanaam loo ko loo ko jëlee rek moom noonu lay jëlee waaw yi may euh, bon jigéen ñi sama moroom yi sax laay gën a njëkkee Eh, ñu xam ne toogaay moom mhm. bon man moom gisuma benn njëriñ bu am si toogaay mhm. te laa ma sa am sa soxla faj faj ko moom je pense jar naa liggéey ba dee comme ni ñu koy waxee <laughs> waaw jigéen ñi ko góor ñi moom je pense bu ñu gisee jigéen buy def lii ñoom tam war nañ mën a fippu mhm. parce que lu jigéen di def yaakaar naa góor war na mën a def ñaar waaw te ñu bañ a toog di xaan état gouvernement Macky Sall diw diw diw avancé loowul kenn man du ma neexoon toog damay xaar état déposé fu nekk fi may waxee ak yow nii fàttaliku ma fu mu mos a jëlee sama CV déposé ko fen juste ba ma paree ba léegi mhm. mosuma déposé fenn mhm. pourquoi parce que dama gëm ni mun naa def sans état parce que état tamit mënul mënul mënul jël en charge jeunes yëpp loolu da koy njëkk def sa xel demal sa bopp nga xool lu lay lu la si fekk si mhm. nga jël waaw loolu daal laa lay ñu ngi góorlu jug liggéey mbay mi si la ñëpp di dellu si fa la fa la ñëpp commencé woon ñu dem ba si digg bi ñu bàyyi ko mais fin bi ñëpp ci lañuy déllu ñu tel ñu tel see juk mën see teel profiter avant muy saturer parce que xam ni mom dans les années à venir moom dina nek lu saturer parce que ñëpp dinañ diriger wu vers fofu waaw effectivement déjà sànq ñu ngi doon expliquer parfois léeg-léeg peut-être là l'on nañ ci côté complication bi mais déjà moi je peux dire que yow dem nga ba créer sa sa emploi bopp. Mhm. voilà déjà y'a ngi demal sa beaucoup xalo ci kenn. Mhm. parfois liguey bi si sa liguey yow léeg-léeg nan lay démé parfois. bon lu ci ëpp damay am ay commande mhm. da ngay gis nit mu intéressé mhm. nga ñëw këram déjà mu wan la li may njëkk a xool mooy placement bi parce que bu dee da nga ko bëgg a teg fu amul soleil moom du ma la koo proposé mhm. waaw da may njëkk a xool bu dee terrasse ma ne ko si fii c'est parfait après nga def sa commande nombre de table bi nga bëgg mm-hmm. ñëw installé la ko defaral la ci lépp répliqué la wala semé mm-hmm. lépp au complet ba mm-hmm. yow arrosé rek nga ciy am waaw waaw waaw xëy ngay arrosé matin soir après nga dem jaar fa dem arrosé arrosé leen waaw par semaine ma def tour bi xool la moo la moo manqué dafa am plante bu manqué wala dafa am lu mu soxla wala dañ ko war a traité dañ ko war a reprendre wala dara moo waral par passage boobu une fois par semaine

effectivement waaw ah, formation à domicile aussi dañuy jënd matériel bi yëpp. Mhm. dem ci sa kër. jox la livre boo xam ne détail yëpp a ngi ci. Mhm. ñu def cours théorique après ñu def cours pratique. loolu mhm. yëpp telle sort que yow de A à ñuy defaree table ak ñuy semer. ñuy repiquer. lépp nga expliqué leen ko lépp dafay bokk ci formation bi nga xam bon à domicile la la fekk si sa kër defaral la ko foofu mm-hmm. ah, parce que parfois dafa am ñoo xam dañ koy bëgg mais déplacement bi du yomb ci ñoom du yomb si ñoom effectivement moo tax mu opté mm. euh, créer formation à domicile ah, parce que ñu si bëri dañuy def ñu jël benn lieu mm. ñu rencontré foofu mm-hmm. maanaam vingt personnes vingt cinq ça dépend mm-hmm. ñu def formation bi euh, en groupe mais man dama ni bon parfois niveau de compréhension bi foofu du demee noonu waaw moo tax créer fi nga xam mooy formation à domicile. fekk la bu si sa biir kër. Mhm. defaral la ko foofu. d' accord yor nga page euh, Instagram wala yenn page. Facebook foo xam ne peut être tey jii mhm. sa page Instagram wala Facebook foo xam ne mhm. tey jii peut être nit ñi. comme ñi nga xam ne intéressé wu nañ peut être on peut dire ci li nga xam ne li ngay def mun a ñëw. visiter voilà visiter. waaw yooyu yëpp am nañ page Instagram am nañ page Facebook am nañ page TikTok aussi. lépp lu ñu liggéey dañ ko fay dugal pour mu nit ñi mën a gis. seen seen compte Facebook wala TikTok bi nu mu tudd. yëpp Nabis Feed feed la Nabis feed d' accord moo nekk nii moo nekk nii waaw waaw si si si Nabis feed la. d' accord Facebook Instagram yëpp. voilà pour ñi nga peut-être bëgg nañ ñëw euh, voilà def euh, cours à domicile ñu former leen ci li nga xam ne mooy ci ci métier bi comme vu que avec le temps ñëpp amuñu temps pour pour pour naa ñëw peut-être ci yenn mm-hmm. ci jardin et tout ça en tout cas vraiment c'est c'est quelque chose yow à te féliciter vraiment parce que li ngay def am na am na solo nekk ndaw teewut voilà quoi déjà am nga sa métier beaucoup on peut dire <laughs> en tout cas macha allah Martha effectivement mm-hmm. comme li mu wax rek voilà quoi nature la donne loo xam ne tey

bëgg nañ ci nekk bëgg nañ tamit li nga xam ne protéger li nga xam ne environnement sans oublier que suñu suñu émission le but c'est ça voilà protéger li nga xam ne environnement protéger li nga xam peut-être peut-être mun nañ pollution bi dégradation bi voilà on peut dire que c'est ça euh, merci en tout cas merci Martha vraiment Fontana, c'est un réel plaisir euh, tey jii ci jàngat bi nga xamné tay di euh, jang nañ ko partager ak yow li nga xamné quelques moments yi nga xamné voilà étude jàng nañ ko mhm. xaw nañ <laughs> touti def démonstration ci euh, comment arroser et tout ça mhm. voilà tamit plante utiliser comment ça se passe et tout ça mhm. donc on te remercie vraiment merci beaucoup de remercier aussi beaucoup internet yi nga nous ne ñoo euh, à travers Dakarwa 221 di jour jox euh, dig numéro Inshallah. merci à vous.